ginnaaw nuyoo bi ñu sant leen bu baax a baax ànd beeg El Hadj Malick TV am na solo ànd boobee yàlla na jëm kanam xibaar yi ñu commencé ko ñaari match yi doon am benn bi di match bi nga xam ne Inter de Milan moo doon football ak Milan AC di ñaari dëkkandoo yoo xam ne ñoo bokk benn stade bu ñu footballé tey nag Milan AC moo ko doon recevoir waaye nag euh, Inter de Milan da koo tëcc foofee ci ab terrain niñ ko mën a waxee ndax moo euh, recevoir ñaari bal ci euh, dara ci match boo xam ni ñoom ñaar kenn ku mu ci mën di doon am na taxawaay boo xam ni war nga ko am match aller la seen ngëm match retour bi dana ñëwaat nga xam ne boobe Inter de Milan mooy recevoir waaye benn option bi nga xam ni maanaam gone Milan yi am nañ ko di option boo xam ne bu baax la ndax match extérieur lañ football am ci ñaari bit yoo xam ni bit yooyee mën na leen a jàppale ci li nga xam ni euh, mooy deuxième lii di euh, deuxième euh, match bi nga xam ne war nañ ko def fii ak bu ndaw boo xam ni war naa ñëw taxawaay boobee nga xam ne tamit Inter de Milan am na ko ñu mën cee ràññee milieu terrain bi nga xam ne ñoom ñoo ko moomee woon milieu terrain boobu nga xam ne fu ci man di daanaka dañu koo téye ba mu dëgër défense bi tamit ñu daal di koy téye ki nga xam ne mooy seenub gardien di international camerounais moom it daanaka laalul benn bal wala boog bal nga xam ni jàpp na ko sonalu ko bu baax a baax ñàkk a sonal googee moo tax ab équipe ba mucc ci li nga xam ni mooy match boobee Milan AC nag moom fi mu toll nii ci leen mën a wax ci moom mooy amul benn chance pour qualifier ci li nga xam ni mooy deuxième wërngël bi benn chance amu ko benn chance boobee li koy waral bu ñu xoolee euh, juróom-ñaar fukk ak juróomi euh, pour cent maanaam 75 pour cent équipe bii di Inter de Milan am na ko pour qualifier moom 25 pour cent euh, dong la am pour mën a jàll ci beneen wàll bi Thomas Müller ak génnam Bayern leer na loolee daanaka lijjanti na ko bam ni kocc euh, at weer yii ñu nga xam ne moom lañ dëgmal euh, ci état bi moom moomee dana jógee euh, Bayern na fekk boobee Real Madrid ak équipe bii di Manchester City témboo benn ak benn ci match bu démb bi kon fi mu toll nii maanaam bu ñu xoolee match boobee maanaam am na ñaari chance yoo xam ni ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci ne man na ko am Real mën naa génn siti mën naa génn waaye lu ne mën naa xew ci boobee match